inni la xel lu liman mama lul

بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخدعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحكمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بعقل اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الخمر مونسا وفي القيامة صفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها ضليلا وإماما بفضلك الجواد وبفضلك الوجود وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وقف عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن اللهم ارزقنا جميعا من القرآن وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء أنتم ولاة الأنبياء فاغفر لنا نسأل عونت لنا نصريا من خليفة مولانا سجارة يعني قاسد المجد وسيدنا الوالدنا مسعود شراطه لمن يناديه من عذره وطالعين بإحسان له يا رب كل يوم آخر اللهم صل على سيدنا محمد. ñaan bu dis baaxul defal la de. sëñ bi xasaaral galaay waaye mu fekkee ñu bëree bëri waaye waaye galaay waaye ah. الزبادي la barakaatu mbokk mi laaj boobu laaj bu am solo la laaj bu ñu mën a wax dara la di gën a sant yàlla bu baax a baax tey nuyu bokk yëpp nag leen sargal ci bis bi nga xam ne bis bu jar a jàpp la bis bu jar fonk la bis bu jar def la nit ñu baax ñëpp te xam lu baax te di ko jëfe dëppoo nañ ci ne lu jar def la sunu sëriñ bi nga xam ne wax na ci wax ju bëree bari Seexul Xadiim yaakaar ja wax na ci ne képp koo xam ne màggal nga bis bii yomal xiyaam diisul xisaab képp koo xam ne màggal nga bis bi mel ni nga ko ko teew Badar ak Xunayn te taxawoon ànd ak yontu bi hmm? ndax Xunayn metti woon na waaye ña taxawoon ànd yont bi wax na ne ko màggal bis bi mel na nga ko bokk ci mel ni nga yàgg ku ku teewoon walla boog shahid bu nekkoon ba badar àgg na ci boo xam ne sax ku koo xam ne kii jël nga dara aw ñam fekk koo xam ne ma ngay jàng baa muy màggal nga jox ko ko ba tey am nga cër yooyu ñu waxoon léegi kon bu doon sax ba benn dërëm rek nga joxe ci ab dërëm wala ngay aw ak ndawal wala lu ma doon wala mu nekk suukar wala xorom duñ xorom ñamu xorom wala ñamu suukar nga jox kuy jàng rek am ngay daraja yool jooba kon bis la boo xam ne nun de nun ñu nga xam ne euh, ñu ngi xeeñtu sunna su muy wax sunna nag sunna laa wax ay waxuma kuy sunna yu kuy kuy kuy sunna sunnalu te àggu ca waaye sunna de bokk na ci màggal bis bi yonent sallallahu alayhi wasallam koo xam ne bis ba nga gën a àdduna euh, Kisra amoon nañ taax moo xam ne mu réy la woon dafa xar dafa xar ngir doole jëy maanaam dara jëy ka juddu am na sawara woo xam ne kon jàmm foofa dafa fay ak ak ak yu bari yoo xam ne yi euh, li ko suñu tubaab waxee rek ci jës bu mi na ruwaati sabatat jël nañ ci ñi xam ne ñooy nettalikat yi ñi xam ne ñoo fekke ak ña solo ci ñoom ñu saxal yu bëree bëri yoo xam ne juddu ko yonent bi amoon na ca kon bis la boo xam ne kon taxawal ko lu jaadu la taxawal ko lu mat la taxawal ko lu yàlla la ci ab jurit ñu ci ndokkeel nag bokk yi nga xam ne ñoo ànd ci ndigal lu yàgg loo xam ne ndigal lu mat la woon muy waajur yoo xam ne nekkoon nañ fi doon sàkk lu lew seen cosaan sax du fii ak ñi fekk ndax fii ñi ci ëpp ci ñu fi nekk ñu wër jàkka ji ay jóge ca feneen la ñu doon sàkk sulu lew yàlla bool leen ñu ay taalibe bool leen bokk gëm-gëm bool leen ñu ay jullit ñu doon ñoo xam ne ñu àndoon lañ ci yàlla rek a tax nekk ca loola ba ndigal fekk leen fi si Amadou ci ëpp ci ak njabootam lañu taxoon fare fii ñu nekk fi kër gi ñu nekk nii mooy cosaanu mooy cosaanu fii daanaka ci ëpp ndax maam Mor Anta moo fi jiitu ñoom ñëpp a ci waajuru suñ bëgg moom mii ñoom ñëpp dañ cee ñëw ànd kook moom bi ñu demee ba ndigal yi agsi fekk ñu mel noo xam ne war nañoo mën a tabax tabax boo xam ne du mab bukk sëñ bi sëñ Bachir xam ci ñoom loolu ñu ak njabootam mu xamal leen leen fi nga nekk na ngeen fa jaamu yàlla na fa tagg yàlla màggu yàlla gi ni nga fi teg ci alayhi salaam ñu xool mu xool bis bii di seen bis mu leen fonkal leen ma ko te fonk ko Sëñ Tuubaa Sëñ Basiru waxoon na loolu Cheikh Amadou ñëw fi feddali ko di Sëñ booba Cheikh Abdoul Ahad ñëw fi feddali ko di Sëñ Tuubaa Sëñ yëpp ñëw fi doomu Sëñ Tuubaa yëpp ñëw ñëpp ñëw fi ku nekk ba ñëwee feddali bis bi mag ñi ànd loola nekk ci nekk ci nekk ci ba sama borom def ci ñoom coobareem ñoom ñi nañu taxawaat daan tey jii dañoo bëgg a àggale muy loo xam ne ku ko dégg war naa taas nank ñëw fekk ko fii jàppal leen ci loolu ndax dañuy wax ne kat euh, kilifa bi fi jógee njaboot ko mbàyyi di xeeñtu yàlla wax na ci aaya ne kat ñi nga xam ne dañoo baaxoon daan jëf lu baax gëm yàlla di ko jëfe su suñu demee ba bàyyi fi njaboot goo xam ne gi gay bi imaanin naaxis la jublu maanaa ngëm gu manqué yàlla day jël seen ngëm googu ak seen jëf jooju yóbbu ko seen jëf yi mag ñu baax ña kon am na yaakaar loolu ci lu mel nii ak niñ ko jëlee ak niñ ko taxawale moo waral suñ tànk yi xam naa ni xat na ndax euh, daanañ gàmmoo tay ba fa lañ jëm war dem sëñ euh, takko mu suñu fàllu ba bari sëñ bu fataa euh, daanañu teew ci bis bi waaye lépp nag rëy gum rëy ci man ñëw sama kër am fuñ ko mën a defee am fuñ ko mën a waxee waaye xam ne ci laa bokk xam ne ci laa bokk ñu ne ñu sa kër lañ ñoo def ci appel bi loolu la ci man waaw boobu muy loo xam ne euh, bàyyi naa ko xel lu baax a baax ak yëg la te nit ki bu fekkee ne dafa jëm lu rëy rëy rëy boole la ca moom yaa ko amel njukkal njukkal wallaahi maa ngi koy seetlu sama borom njukkal lu rëy loo xam ne lii la tax ngeen def xawma ko ndax xam naa tax laa jàpp ak bëgg lu baax moo tax ngeen def loolee waaye fu ñu ko mën defee ci kër yi am na kër yi am na fa mën nga def fu nekk sax mën ngaa def ba tala sax a def ko fa te subaa suñu mooy dinaa ñëw waaye ñëw gu ñu ne ko kër lañ koy defee ñu defe ko fa ñëpp ak may woo ñëpp ak may woo di wax ne gàmm gi lii di ci dafa dafa war a am bu yàgg ba ci ñoo xam ne ñu wàgg Alassane ñu ngi may woo di wax ne diggéen danga nga ñëw da nga ñëw da nga ñëw Kaolack ngay gàmmoo ndax appel bi gis nañ ko muy loo xam ne lu am ampleur la boo xam ne bii na sax nag tàmbali la ñu ngi doo tàmbali mag ña pare woon nañ waaye yéen doo tàmbali yàlla nañ sut fan fan am mag ña te euh, lañ jëfoon saa borom ful ko ba fuloon ñu ko ñu ak ca lii fu ñu amoon yàlla suñu amoon fu ñu amoon yàlla nga weesu lii wér nag mooy mag ñoo la ñuy baax baax gënuñ ñu ndax ñoo seen doom ñoo seen sët te doomee di bàyyi ba dañoo gën a xam suñu Tuubaa rek gën ñu yaakaar suñu Tuubaa gën ñu liggéeyee sëñ bi buñ jàppee ci loolee li amoon fu ñu demoon dañu dañ fàgg àgg kon nañ dox buñ doxee dañ dem lii rek tàmbali dox la ku tàmbali dox nag yàlla def la nga ami tànk tànk yee fa nga koy teg lépp amul amul dégg amul xam-xam amul dara mag ñi bal nañ ko léegi comme set dox dina yomb kon na ngeen gën a jàppawaat rek xam ne tàmbali bii kat ni mel nii nañ fexe ba déwénee ñëpp ne bu daaw ba koy fàtt nañ ko te yàlla mën na ko te ki koy defal moom ëpp na ko maanaam àgg na ci eh, darajaam bu ñu ko xamoon danañ jalal bu ñu jógee Tuubaa dañuy dox ñëw bu ñu jógee Dakar dañuy dox ñëw ndax yoon bi jar na ko màggal bi si yoon bi moom mm, lu waaye di mën a wax rek daal toog fii nga toog sab lal añ jot nga añ reer nopp ma nopp ñu li yàggoo waa waa badar yéen bokk réer na loolu fekk shahidun shahida la wax bataan bi dafa raw dane bi xëy waxe mi la wax te doon waxuma ko ngir ngëmmeen wala mooy tekkamtal lu wér laa ci am loolu ko la wax fekk shahidun shahida bataan bi xëy waxe mi la wax comme yàgg ka dem ba badar teew badar yéen a yem mu waxaa daane képp ko man jël aw ndam ñam ñamu sukar ñamu xorom walaw bi xaj raxamin yaa ku nekk xunayn xunayn la ca xewoon mooy yón euh, sallallahu alayhi wasallam dafa ànd ak dafa ànd ak saxaaba yi ñu dem xunayn yi bañ demee yàlla ñu xool seen bopp ba yëg seen bopp ci nekkat ñoo war nañoo mën a gën ñii fàtte nañ yàlla ñoo ko doon def yooyu dul moom waaye jullit yi njàmbaar gi nekkat ñoom ak bëggul baax gi nekkat ñoom dem nañ ba ñu damu nit ñi dañu leen saagal yàlla wan leen kat lu mu àndul dana sotti sotti rocc la mu rocc yàlla def ñee kii leen suñ tubaab nag ñi taxawoon nag bañ a daw ànd ak yontu bi ku def loole joxe kuy jàng wala nga màggamu nga jox ko dara bu doon benn dërëm la wala nga jël ñamu suukar wala ñamu xorom hmm, jox ko moom muy jàng yaa ko taxawoon xonee ne ànd ak yontu bi am nga am yool booba lu rëy la kon nag bu ngeen jigéey defaat nii mag ñoo noppi nañ ndax defoon nañ fañ tollool fexe leen ba def la suñ fa waxoon suñ tubaab rek ba mu tabaxee jumaa ba noppi ñépp di ko yéem dana ko mbàkke ñoo ngi nii fii nga yem ak ñun bokk demee ñu romb ko tey nu mel nu mel tey jumaa jëkk ji kenn xoolatu ko ah bañ def ay moom eh, ay ay ay ay ay ay université trente deux milliards kon fii la yem ñun boo demee ñu romb ko kon ne wax ne suñu basiru fii nga yem ñun kat boo demee ñu romb ko bu jeex yàlla nañu romb ko bu baax a baax te ñu dem ba fu ñu tudd ak gàmmu rek ñu bokk ñun rek lay fal yàlla mën yàlla mën na ko baax baax te lu baax rek la boo doxee dem ca wasalaamaaleykum eh, ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam tey sant Cheikh Al bu baax a baax ci li mu ñu defal te ñu ko suñu bopp loolu ak cant la joo xam ne dafay dolliku saa su ne abadan la jëm fii ak fanu jëm ëllëg la ñuy sant Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom kattanal ko te dëgëral ko ba nga xam ne naal yi nga xam ne naal na ko fas yéene ko liggéeyal Cheikh al Xaddim mu yàggali ko sagoom waaye nag ñuy sant tamit tey gërëm suñu suñu kilifa gu tedd gii nga xam ne moo toog di bàyyi Cheikh Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadal di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax ci turu njaboot gi njabootu àllaa Cerno Seck gépp ak bokk yi mag yi nga xam ne ñoo fi nekk ak kilifa gi nga xam ne moo fi nekk muy sëñ Mayacine Seck ñu la ciy sant mbakke bu baax a baax ñu de suñu xel dal na rateex itam ndax Mbàkke li nga def dafa rëy ba ñu jógee xam ne yaay kër gi kër gi mooy yow ñu jóg xuus ci ak sunuy tànk jëm si si yow ca Ndakaaru waaye bañ la ko waxee da ko rafetal lool xam ne ci biir kër gi nga bokk ci biir njaboot gi itam ci nga bokk def ko ci anam bu sell bu yàlla gërëm kon Mbàkke amel nañ la cant gu rëy rëy ñu ñaan yàlla nga sut sa waajuru fan te dese barkeb Cheikh Mouhamadul faadal ndax yow kat bokk gi taalibe yi am di jàmm yi ñëpp dañ lay sagoo ci jukk yi nekk ci yow ak melo yi nga xam ne moom nga làmboo ci biir ak ci biti kon jar ngaa sant jar ngaa gërëm lii nag duñ na guléet ndax fii dafay barab bu sell di barab bu tedd bu yàlla gërëm ay mag yi baax nekkoon fi di fi liggéey lislaam ci ci anam bu ama anam bu set wecc boo xam ne ñépp mën nañ koo seere ñu mel ne Baye Mor Seck dañ fay jaaroon Ale Samb Guèye Ibra Faati ma Masamba bàyyi bàyyi bàyyi dàng saadi bàyyi ñoom bàyyi Aliou kebe bàyyi Mbaalo kebe ñooñu ñëpp dañ fee nekkoon ci nekkin woo xam ne nekkin wu rafet rafet la di dox di dund sëñ bi sëñ bi nekk seen lépp seen lépp yi biir seen lépp yi biti kon ñooñu bu ñu leen amee ñu bay seen waar baarin bu rafet ñu xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo am solo ñu nekk ca ñu ñi nga xam ne ñooy seenu njaboot ah ci foofu rek la ñu war a tënku barab bii nag dafay bàyyi alaaji Thierno Seck lii nga xam ne moo war tey di dund nii ba toll fii daf cee def njëmbat mu rëy rëy rëy daf cee def liggéey bu rëy rëy rëy ndax moom liggéeyal sëñ tubaa rek moo ko mos a ñor soo xam ne loolu mos a xam sax ne kër Cheikh Mamadou Bachir ca la bokk njabootu sëñ tubaa gépp la àndaloon. fekk tëdd. Mhm. ba sëñ bi dafa ngeen dafa ne bis bi nga xamee ne moom la suma bàyyi Alaaji Cerno Seck di wàcc liggéey dafa nee na dafay ñëw samedi ñëw fekk sama maam yaa maam jaara Fall mu ne ko sëñ baa ngi ci biir waaye dafa jógul waaye nag xaaral ma wax ko ba xam nee na bi mu jógee wax ko ko sëñ bàyyi Cerno Seck daf na ñokkat jóg te teewuloon mu ngi doon ci tawat daal dox tànk yi dëgër nee na ñëw toog ci banc bi daal di na ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko damaa gëj rek waaye nag mag ku ko am da nga koy nemmiku si mu ne ko mu ne ko maa fi xuus ñëw set si la mu ne ma waaw waaw waaye mun ne ko sama xol sedd na guy waaye comme ñëw nga tey man mi toog tey sama xel dal na sama xam ne lépp dana baax sëñ bi ne ko waaw waaw sekk ba ca kanam rek waaye nag wax ji mënta ñàkk waaye xamal ne sama xol sedd na lépp dana baax nee na ko mu ne ko sa ñëw gii nga xam ne bàyyi ko gu ñëw fi dal na sama xel nee na ab daal di def ay ñaanam nee na mu daal di tàggatoog moom muy gaawu ci bëccëg moom mu daal di jàll ndakaaru dibéer altine sëñ bi daal di noppalu bàyyi ci yoroon sekk noppalu waaye kon nga xam ne loolu lu doy la mboolem ba ab loolu kat ab woote bàyyi ci Alaaji Cerno Seck ndax moo woy sëñ bi nee na dafa toog ba ci yàgg mu xam ne mën mënta ñàkk mu ne naa dem seet bàyyi Alaaji Cerno Seck nemmeeku ko nee na kilifa nag boo ko amee ay kilifa ñu mat kilifa nga mën leen wone fu nekk te foo waxee nga ne ñii samay bokk la te doo rus na kon foo nekk rek war nga leen a damoo kon ñu xam ne cheikh de mu ne cheikh mii nee na lii tubaab di wax fierté moom la def ci si ay ci ay bokkam ndax ay ndax day nee na fu mu taxaw ne ñooma nee na du dégg lenn tudd aw tagg nee na sëñ tubaa baax lool ba jéggi baax te lépp moo ko waral nee na ñii nga xam ne ñooy toog ay nijaay sëñ bi lañ nee na bu doonuloon Cheikh Al di mi nga xam ne moom la ñu yaakaar teeg ëllëg kon ci suuf lay toog moom ñoom ñu toog ci kaw nee na waxu leen ñaar nii waaye sëñ Ablaat mi ko yónni nee na borom rek a tax nee na sëñ bi ci boppam moo xotti baax tey xarit baax tey xotti baax waaye nag sëñ Tuubaa moo la gën nee na doonul ne teewul ne teewul ne yaa gën ñëpp nee na xotti baax moom boo ko defee rek gën nga ñëpp nee na amul sëriñ bi nee na amul misaal waaye sëñ Bamba la gën aw tagg la mm, nee na am na jëmm ju ko waxoon Cheikh la Lahat toog ak moom di waxtaan ak moom nee na mu ñëw na ko sëñ bi waaye ah, ah, yow sa baay moo la gën kat sëñ bi moo ko wax ne ko yow sa baay la gën waaye su waay yaay yaa def noonu waay. mu ne ko dëkk bii gis nga ku bàyyam mu ne ko dëkk bii gisoo fu bàyyam gënul. sëñ ab sëñ Blaat ah, na ko loolu ab àll la. laa ilaha illallah muy loole daa daa bokkul fu ñuy daa bokkul fu ñuy na fu ñuy xëccoo mbaax bokkul. nee na dafa bokkul fu ñuy xëccoo mbaax. sëñ Fall waxoon na ne. lu ñu am ki ñu am kenn amu ko amul fenn kon nag. loolu nit lu nit ne ko ne nekkul ne sëñ Tuubaa moo gën. ba mu waral lii ba mu waral lii. waaye kat sëriñ bi nee na. ñu tedd jëmm yi tedd ngi yéen a ngi nii. waa si ma waxoon léegi rek sëñ bi nee na. lim naa mag ñëpp toorkal la. nee na fi ñëw dinañ fekk. ba ci Baye Mbaye Jaxate mi ñoom ñëpp. Ousmane bi nekkoon ñëpp. nee na ñëpp ñëpp la xamoon nag. daana fekk fii maamam. ñu yebal leen ci moom mu daal di siyaara ñëpp. nee na bëggoon ma xam ñëpp rek. dëgg moo xam nag lii tax tax nday tey jii li ko waral mooy tey lii la bëggoon lii nee na sëriñ bi nee na lii yàlla na sax ñu ànd ko yàgg a yàgg sam suñu borom nangu ko te jubal ñu nee na kaddu bàyyi ma yaasin sekk ba bàyyi ma yaasin lay waxee ba bàyyi suma bàyyi lay waxee tarkalla jërëjëf bàyyi ma yaasin lay wax tarkalla nee na moom du bàyyi tarkalla Mbàkke mu ne daf ko waxoon ne ko mag laa jox naa la sama loxo fépp fu ma war a dem lu ma far a wax nee na soo ko waxee noppal naa ci nee na bañ ne ko léegi ba léegi tey baa ngi sa loxo nee na loolu la waxoon bàyyi sañ Cheikh Mbacke mii nee na kon ci turam rek lay doxee kon yàlla na jàmm yàgg jërëjëf Mbacke Mbacke doole te ñoo sant sa waajuru tedd ba di Cheikh Mamadou Fadal 1947 la ñëwoon fii. ba mu fa dikkee mu woote ku mel ne Aliou Samba Gueye ak mag ñi mu ne dama bëgg nga dajale ma bokk taalibe yi yëpp bu takkusaanee ñëpp nañ nga dem wër ci taalibe yi nekk ci kaw Kaolack yëpp nga dajale leen ma waxal ma leen bu timisee ñu fekk ma jàkk yi murit ma faj seen aajo ma faj seen aajo moom Cheikh moom doon faadal bi ñuy julli timis sëñ Fall du ko jëlee boobu jàkka ji ay seng moo fi nekk seng yoo xam ne dafa ba ba nekku bàyyi koo li ci des lépp ay plein la sëñ Fallou jiite bi mu jiite ba rakk bu mujj bi ndox mu bari di sotteeku ba nga xam ne li sëñ Fallou soloon ci suuf lépp mu ngi laal ndox bi mu julee ba sëlmal daal di jàkkaarloog mbooloo mi na xaw ma képp ku fi ku xam ku teew ak ku teewul de waaye yéen ñëpp suñu borom faj na seen aajo bis ni ki tey sëñ Fallou sa waajur wu tedd ba moo dem faj aajo yi moo dem dimbali jaam yi ci biir ak ci biti yàlla na yàlla guddal sa fan Mbàkke jërë ngeen jëf. njaboot bi ñu àndal di sant mbokk yi mbokk yi nag buñ mënee dëkkandoo tax jëf yi ñoo ko ànd te jëf yi rafet na lool sëñ bi nag e, dañ koy sant ndax dañ suñu cër yàlla ñu ko jox buñ ko fonkee moo ñu ko jox ñu ko fonk itam loolu suñu gémmiñ la waaye yàlla ñu ko boole te li ñuy wut buñ ko wutee nañ ko am tamit ñuy dimbale dañu ànd moom ba da nga nag ñi nga am jéego yi ba ca tay ba ak ci fii ak askan wi sonn na nag ci suñu itte lu xew mu jóg waaw xew yeeg lu jóg mu jóg waaye ba mu ko defee itam bu noppee rek ñu am ci liñ bëgg ñoo ngi ñaan yàgg fi lool waaw yàgg ñu jiite ñu nangul ko it waaw di ñu xàllal ñu topp ci moom lu dem waaw ñu ngi koy ñaan la rek ñu ngi koy ñaan daal waaw sant sant rek luñ ci mën a wax sax bëri waaye sant dañ koy def waaw ndax mu dafa sonn ci ñun waaw sonn na ci Taïba sonn na ci yoonu murit sonn na ci lislaam waaw mu ngi nii fu nekk ci itte lay nekk dafa ko xool baag ma yërëb ma ne ko sëñ bi sonn nga di itte jum ci itte lay nekk loolu moom mën naa koo seede te ñu ngi koy gërëm bëgg nañu sopp nañu kon nañ ko jàpp bu baax di ko déglu di diisoo moom bu ñu ko defee rek lépp dana baax dëkk looyu ñu ngi leen sant ndax ñoo bokk ndey bokk baay ndax sama baay mi fi nekkee dégg naa ñu ne fii la suñ Fallu daan dal suñ mulu sax daan dal fi kër Baay Moor ba mu fi daan dal ba mujj mu dem boori Tamba ba mu fa demee xam nga daan jël ay wagon wagon mat booba suñ mulu sax tax mu dem kër Baay dàng daa fekk Baay Moor dem waaw suñ suñ Fallu moom musaa ñu fii lay dal ba ni muy dal kër Baay la somba kii bu musaa ñu ci Baay Moor na ko taxal na sama jàkk ci bàyyi moo dafa fàtte boppam jàkkee mu dina ko daan taxal taxal ma ko ku fi ñëw ma ko ba ci yu ma jóg moo dem ñëpp fi ñëw suñu moo xëri ñang ñooñu fi dañu daan ñëw waaw waaw waaw waaw su waaw ah moo jiitu ab tampam fii ci jàkkee fii waaw suñu bàyyi nag seet nañu lu bari ci moom ndax gunge nañu lu yàgg gunge nañu ñeent fukki at ah waaw loo fekkee luñ luñ luñ ko royu rek ci dun la waaye jàngal <laughs> nañu ko jàngal nañu ko gunge nañu itam war nañoo xam ne jikkoom xam xam la war a bëgg ñëw di ko def lam ba ñoon ñu bañ ko kooku lu gunge ñeent fukki ko war ngaa xam la mu bëgg ak la mu daan diggal ak la mu daan waaw ñu ngi sëñ bi sant bu baax sant nañ mbokk yi sant nañ islam sant dëkkandoo ñaan lépp jëm ca kanam waaw